aca sama gars yi gars yi seen bii di Mbaw Boss Foot ñoo ngi ñaan kuy gan ci bi nga abonné partagé yokku ñu doole gars yi tey jii ñaari doomu Sénégal ak Italie lañ leen indil muy Cher Ndour ak Philippe maane ñu nekk ñaari boo yoo xamante ni nii mën naa ni Cher Ndour ab attaquant la Philippe Mané ab défenseur la ci Philippe Mané nag la ñuy njëkkee maane Mané mën naa ni mi ngi Borussia Dortmund te ab défenseur central bu mën a football boo ko tegee latéral gauche mu doxal boo tegee latéral droite mu doxol kon mu maane mii dafa jot Aliou Cissé bàyyi ko xel parce que booy bi avenir la de avenir la te jàpp naa ne booy bi ëllëg war naa mën a def dara ci footballu Sénégal bi kon booy bii di mu maane dan kaa war a gaa woo ci équipe nationale bi parce que ku nekk xam na ne tubaab bi léegi dañuy France France lu de Allemagne day France France lu itali day France France loo parce que mën naa ni Allemagne suñ ñetti booy yoo xamante ni waroon nanoo mën a ñëw représenté Sénégal ñu ngi Allemagne ak ñaari booy yi nga xamante ni mën naa ni danoo war a ñëw représenté Sénégal te Italie bii nii teg na ci loxo woon nañ leen seen équipe espoir yi mais footballaguñ si équipe A bi nag footballaguñ si équipe A bi kon Sénégal am na wërsëgu yaatu pour mën a récupérer booy bi bu fekkee ki nga xamante ni moo di Cher Ndour Cher Ndour nag mën naa ne ma nga fa Benfica nekk ab attaquant boo xamante ni mën naa ne boo ko tegee excentre day doxal boo ko tegee milieu terrain bu doxal moom Cher Ndour mi ñu ko xàmmee bëri na mën naa ne ci équipe bii nga xamante ni moo di Benfica bu ndaw bi doon na fa def ay match yu baax ci leen ko yéegal si équipe A bi moom Cher Ndour moom Cher Ndour mi sax football na ci espoir yu Italie moom Cher Ndour te doon na fa def ay match yu baax kon Cher Ndour mi dafa jot Aliou Cissé gën ka bàyyi xel parce que Cher Ndour mi équipe yi ko tek beut sax légui dafa bari parce que équipe bi nga xamanteni modi Paris information yi nga xamanteni jot nañ ko demb mom Cher Ndour mi équipe bi di Paris djubona ak mom pour bu saison bu jexé bu yokul contrat ci équipe bi nga xamanteni modi Benfica day dem ci Paris te boy bi nek na ab attaquant bo xamanteni gëm na ni dina bind histoire ci football parce que boy bu man lamay def boy bu xarañ la te xale bu ndaw la dix-huit ans 15 ans la am kon booy bii nii waruñ koo bàyyi ak ñun dañoo war a xeex xeex bi guerre guerre bi parce que Italie waruñ koo bàyyi ak booy bi quoi parce que booy bi talent la talent la te ñun ay attaquant luñ si am doyul parce que attaquant yi ñooy nekk avenir u bi ëllëg ma ne bu défense bi baaxee milieu bi baax gardien bi baax te attaque bi baaxul mook zéro moo yem kon équipe buy baax lépp war a complété baax kon Cher Ndour mii dañ ko war a woo si équipe bi mu ñëw renforcer suñu attaque bi mën naa ne sunu attaque bi mooy loolu quoi dese naa xarañ parce que sunu attaquant yi tey bu kii dugalee bala moo dugalaat yàllaa xam kon Cher Ndour dañ ko war a woo si équipe bi renforcer sunu doole équipe parce que Coupe d'Afrique 2024 baa ngi ñëw te équipe yëpp yor ay défenseurs yu xarañ gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partager ci kanam ak beneen vidéo